salaamaaleykum mbokki téléspectateur yu Kéwoulo TV ñu and ak yéen am mbégte ak contentement ba tey yéen a ci 18 safar bi édition 2019 ñu ngi fi nga xamantene mom moy résidence Khadim Rasoul ci cérémonie officielle bi manam li tej màggalub Touba ñu gis fi ministre Ali Ngouille Ndiaye muy ministre de l'intérieur kaddu yim fi bàccee sëñ Bass Abdou Khadir aussi kaddu yim fi bàyyi duñ def mbok yi luddul lek rek len image yooyu dugg ci biir it waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo bàyyeekoo dëkk ak dëkk délégation bu nekk ñu wax ñu fu ñu jugee wax ñu ñom euh, lan moy seen relation ak yoonu mouridisme euh, Don tatan si ci eh, Cheikh Bashir, amati nañ ko li tax ñu am ko modi di Cheikh Bashir Abdou Khadr yalla nako yalla yok bayiko xelam ah lim ñu jëk wax moy taxaway murid yi ak engagement au murid yi ak mobilisation murid yi te loolu Masaalikul Jinaan bii ñu genn daf ci doy exemple eh, man am li serigne bi ñaanon njabotam and waxtu wu ñu rek li ñu bëgg dinañ ko am waxtu wu ñu rek li ñu bëgg dinañ ko def te murit ñaanu lu dul liggéeyal Serigne Touba ànd boobu di ñu may ñuy mobiliser ay ressources ak lu mu yéeme yéeme pour liggéeyal Serigne Touba. xam nga mënuñu koo defal benn critique parce que bu ko waxul woon dinañ ko interpeller ñun waaye tey mënuñu ko interpeller ndax Touba la ñu bokk ak moom ñi xam sama kër xam nañ ne maa ngi ñoo benn moom li ñu vivre ci fan yi moom vivre na ko parce que mën naa seede man ni mu ngi fi na xel ay dëkkandoom bàyyi xel ay dëkkandoom moo tax moom xam nañ ne am na ndox waaye ñun ñuy dëkkandoom te ajuwuñu ca nguur gi am na ci ñoo xam ne amuñu ndox wax dëgg yàlla ndox mi itam amélioré wu na mais ñun ak moom ñoo dëkk mu ngi fi woon di ko vivre comme niñ koy vivre bàyyi na xel ay dëkkandoom may nañu respect su kon fii ñu bokk ci Touba di ay taalibe ñun ñëpp yàlla may ñu fi màkkaan ñu dëkkandoog moom loolu dinañ seede ni li mu wax dëgg li ñu dinañ seede gis na situation parce que dès lors que identifié na ko xamal na ko boppam mënatuñ koo waxati dara ñu ngi koy déglu nag ndax bu nee dafa bëgg euh, xalaat moog kilifa yi mu ngi préconiser ay mesures li des mooy ñun ñu nga assemblée di ko fa xaar. sëñ Abdoulaat wax na ko ni sëñ Touba liggéeyal na yàlla ba àgg fi mu àgg mëste damm bant mëste yëkkati ngànnaay kon moom mën na xeexal boppam. kon tey boo xoolee discours Aly Ngouille Ndiaye muy taalibe Serigne Touba axe yi nga xam ne foofu la doon waxe mooy fi ko doon xaar wax na résumé bi wax na yit li population Touba di xaar ci gouvernement bi te résumé bi ñëpp ci d'accord adhéré ci tey kon zéro faute la def mais Cheikh Bassirou miy waxalit sëriñ bi wax na wax joo xam ne ji ab jàngale la ab école la boo xam ne war nañ koo jàngale discours boobu da ngeen koo war a jël ngeen toj ko lan la ci wax pour nanu ànd man serigne bi moma wol bopam tegat ci luma serigne Cheikh Sidi Mokhtar waxoon daf ma wo bamu ñew monima mu maniko ma Mbacke Cheikh ndaye ngi tok ministre mam Thierno Dieng ñun ñatt rek fa ne dama lay ñaan bul tontooti nit ñi maniko a ah, du yomb de ndax politique lay def te dañuy fab sama gannaaw tek ci lo xamne dara du ci deug lu bax lima ma def lepp ñu bëgg koo sóol mu ne sa jëf dana leen tontu maniko kon ñaanal ma ci lolou serigne muntaha waxat na ko toogal ci position di defar ndax gëm naa ne taalibe sëñ Tuubaa nga kon tey wax ji ne sama xol dafa fees sama xol sedd ma bëgg Sénégal gépp ñu bàyyi eh, ku ne am nga sa jukko mais nanu Sénégal ñor Sénégal am nay jafe-jafe yu bari jafe-jafe yooyu ku nekk war na cee wax démb maa gis ay policier ñu takk nit ci mbedd mi di ko toroxal wax naa ko Aly Ngouille di ko dóor di ko këdd au vingt unième siècle damaa taxawal sama bopp wàcc wax ak policier yi bi ma pare ma woo commissaire bi ni ko ñii li ñu def droit de l'homme nangu ko xel nangu ko mais pourtant kenn du ko wax lu tax duñ ko wax te bu Cissé loo waxoon ñëpp jël ni way Cissé Lo na mu waxe looloo mat a wax as gor ñu toroxal ko ci biir nit ñi duma ko def ko jaay ko doole te deful dara kon yooyu la ñu war a wax nañu xoolaat li jariñ réew mi man 65 ans laa am billahi ak borom jumaa ji kuma manal dara amul ci Senegal. kenn nak sama bop rek la yakar yakaruma kenen liggey ak jaamu yalla la ne dama bëgg nit ñi nañu def ne man te bayyi wax ji duñ ma jot ba ney tukki kenn jot man damay naw gaay di ram. fan mëna fan nga bàyyee ko. ambassadeur de l'islam mhm. euh, ma porté délégation bu famille mam Matar Sylla Dramé mhm. ñëw teewee la ci sëriñ bi bis bi mhm. ngir bokk ak mom li nga xamné mom la diglé won mu ñu sant la ko ci 18 sabar fa tabaarakallaahu sunu maam amoon ak waajuram wóllëre muy maam Mor Anta Sali Mbacke ca Poroxaan sunu maam dëkk ca Ndramé di ma ñu koy wax Seydi Aji Madakira ay at a ngi nii ñoo fi teewal sunu kër maam ngir jëmmal bis bi ndax l'islam bi ñun ñëpp ko bokk fa tabaarakallaahu ñu nommé ma it may ambassadeur de l'islam di Safir kon yaakaar naa lépp lu xew ci diine rek war naa cee dugg war naa cee bokk teewal sama maam sagal ko loolu moo ñu indi fii tey. fa tabarakallahu di waxit ne eh, magal gi ñoo magal am solo waaye ñoo magal si fexe ba déglu lu ñuy wax boo yeggee nga jëfee ko moo ëpp solo bërëb yu mel Touba yu ba ca ak bërëb yi ñuy ngir di fa am tawfiix yàlla soo fa demee ba ñibbi lii tegtale na ñëwoon nga mooy boo amoon jikko ju safaanu boo yeggee soppeeku ku ne xam ne réew mi fi mu na ay problème ci waxantelu ñaaw ci defante lu ñaaw ci xastante te lolu yalla diglé wuko yoonent bi nga xam ne lañ yoni won ci ci ci ñun muy sayyiduna muhammad rasulullah sallallahu Alaihi wasallam mi nga xam cheikhul khadim liggéeyal na ko liggéey bu reuy ba bisam bi mel diglé wuko kon limay bayilo ni ñi xel moy bërem bis bi nee fi bo juwé ko fi képp kum cheikh ak diine ji dafa bind ay xasiida manam ay lettre wax ci yow lu bax way xasu nit ñi nee moytu di xassante amun njëriñ nee moytu di génnee ay sik jàmbur amun alquran dañu wax ne wa nazi lin nasi husnan qabla aqim salat waye rew mi legi dañu yakar ne concours waxante lu bon fay xew concours wuñu suture suturee da fay xew concours da fay aw anyan mom wa tabarakallah legi mo gëna mo da ngay bokk dara sax nga avancer avancer wul rek mu mu mu créer ben clan wa tabarakallah pour fas yéene taxaw ci kaw defante ak yow. léegi nag dañoo ci magal gi borom magal gi dafa am nu daan wax li ku fi ñëw na nga fexe roy ci Cheikhul Khadim radiyallahu anhu roy ci ay njabootam parce que ne ko teg ci yoon rek rafetal lépp jazakallah jërëjëf waaw mais sant yàlla bu baax di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba Cheikh Abdoulaat Mbacke sama Serigne yàlla yàlla lokk reeram Serigne naa sama Serigne yàlla fi yàgg ci weer waaw man sentiment bu may am yëpp mooy xam ni yoonu murit di doxee juddu ci màgg ci fas yéene cee man xam naa ne benn discours bu xalif général. discours d'apaisement duma bett parce que kër gi non la bindoo xilaafa gi noonu la bindoo eh, sëti Serigne Touba yi maanaam njabootam gi dala ci doomam yi ba nëgë kenn gis muy intifada donc ñoom jam rek lañ mës a woote waaye jàmm yi léeg damai woote nii dañuy wuute ndax damay wax naan bi Serigne Abdoulaat Mbacke làqoo toujours dama daan wax tin ma ci jeex bu Serigne muntaha, mi toog damay xool ba mu est-ce que bayam sering Abdoulaye Mbacke mo delu ci ndax ñëwee na dëgg dana ko wax tubaarakaala macha allah dina ko wax ci yar dina ko wax ci teggin te dina ko wax te bu ko waxe ñim mu koy waxal dañ ko dégg donc bu wootee jamm ñëppay top ci ginaaw Mbacke ndax nonu la ko gisse man gis na ni moy dëgg dëgg dëgg dëgg Serigne Touba. tay ji ni ngay en tant que député à l'assemblée ñu ñëw rek touti ci politique manam djubo bi nga xamantene amna ci digënté président Ablaye Wade ak euh, président Macky Sall yow lan nga ci wa man lay wax ni la wax na la ko réew mi Bamba ko mom luñ fi bëgg day am Serigne Mountakha moo ko sàkku mu nekk maanaam malaaka yeeg mawti yi ak nit ñi ak ñun ñi am ndombay tànk ci réew dox nañ ci loolu mënta sotti Serigne Touba daa wax waxul daa yónnee. léegi ne ñoo ne woon dama leen di wax ne réew mi Bamba moom miin réew lu fi Bamba bëgg mu nekk. sant di sant di gërëm rek <coughs> yàlla mi ñu may ñu fekkee ren yàlla na ñu may ñu fekkee déwéni déwén euh, di gërëm bu baax sëñ Mountakha Bassirou Mbacké ak sëriñ Bassirou Abdou Khadre mi mu dénk kàddoom ak Serigne Sidi Abdou Lahad mi mu doxale ci digganteem ak ñun taalibe yi màggalu ren gi euh, sëñ Tuubaa wane waan na ci boppam gis nañ ay réewi réew ay dëkki dëkk yu daawul ñëw ñëw nañu tey gis nañ ne mbooloo mi yokku na euh, gis nañ ne jëm discours yi am na solo trop muy discours ministre de l'intérieur Aly Ngouille ak discours Serigne Bassirou Abdoul Khadr euh, nañu jéem a rek surtout discours Serigne Bassirou Abdoul Khadr nañu jéem a jëfee ndigal li nga xam ne sëriñ bi euh, digle na ko euh, bu ko defee yaakaar naa ne suñu njëriñ rek lañ ci lañ ciy euh, lañ ciy lañ ciy am surtout li wax ci wàllu kilifteef xale yi buñ jàpp mukk ne kilifteef du fee jóg buñ ko jàpp mukk ku ne am nga kilifa xanaa nga nangu ko wala nga bañ ko nangu mais ku dox ci amul kilifa mu amul yéen ñi liggéey ak man mi liggéey yéen ñi nekk ci tarixa yi ak yéen ñi nekk ci yeneen ak diine yi koo gis muy dox rek am na kilifa te nit nak bo amé kilifa da ngay nangu ne am nga kilifa yaakaar naa loolu la diktal ndaw ñi euh, buñ ci saxé nak jamm rek am parce que kilifteef mo tax señ muntaha bashirou mëna a Macky Sall président Macky Sall ak président Abdoulaye Wade ngir ñu dajé Massalikul Jinaan ngir bokk ndey euh, bokku bay la ci mëna a moy digënté état ngor ak ak way way politique yi lu tollu ñaari président amone ay dig nga jubale leen ki ko fi wuutu ak kam wuutu nga jubale leen loolu ci lislaam waaye wàllu jullit lan kon foofu acte la boo xam ne nii kilifa diine képp moo ko man ku mel kon loolu dañ koy rafetlu ndax ñaari jullit lan waaye diggante doom ak baay bala beneen bi ci des it ñoo bokk Sénégal bëgg Sénégal mën a jëm ci kanam kon lépp yoo xam ne war na noo mën a jaxasoo liggéey ko ba Sénégal jëm ci kanam loolu acte bu rafet la ñu ci sant sëñ Muntaxa di ba nga xam ne mu ngi jëm ci Ousmane Ba Ousmane Ba day nit ko xamni ni dafa yëkkati ay cadeau wax ko ci yoonu Serigne Touba wax ko ci Mam Aladji Malik wax ko ci ñeneen loolu def nañ ben plainte arrêté won nañ ko Gabon ba def nañ benen waxtaan yo xamni ministre de dañ koy wax ak au niveau du dig yaakaar naa plainte bi mandaté nañ yónnee nañ li nga xam moy mandat d'arrêt bi ñu koy suivi di xol ñu indi ko ci réew mi ba nga xam dutu ñu nangu kenn di yëkkati ay cadeau diko tek ci ku melni Cheikh Amadou Bamba Diom d'abord gëm Yalla ji gëm Yalla so gëmé Yalla Yalla dana la mussel si bép fitna seetal sida mi ngi rey Afrique seetal drogue mi ngi yàq Afrique te gëm yàlla soo ko jëfee yooyu yëpp da nga see mucc boobu mooy ponk bu njëkk bi ñaaree ponk bi mooy xam-xam xam-xam moo la man jariñ moo man jariñ mbindeef sëñ Touba dafa gëm ni xam-xam mor nga ko mën wuti rawatina xam-xam bu sell soo demoon ba Chine di ko wuti ñetteel bi mooy liggéey du Afrique du ñeneen ñoo ko mën développé ñun ñoko man mën développer suñu bop ñun ñun africain yi té nan lañ koy def euh, développer moy jug liggéey liggéey bobu tay woné nan ka masalig wane na ka juroom ñaari at nangami milliard mën génn université bi déjà réaliser nañ ko 48 lool moy woné ni dañu war fexé xamni waru ñu compter ci kenn suñu bop lañu war compter laxasu laxasu liggéey loolu la sëñ Muntaxa kon sëñ Tuba njàngaleem réew moo nekk addina boo nekk jamono boo nekk war nga ko mën jëfe te soo ko jëfee jariñ mbokk téléspectateurs yi ñu doon suivre ci Kéwoulo TV ba tey ñu àndoon ak yéen fi nga xamante ne moom mooy màggalu Serigne Touba bi mooy 124e édition ci atum 2019 kan ma waraloon bis bi mooy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul moom mi nga xam ne dafa ne nañ ko santalal suñu borom képp ko booleeg lenn nañ ko santal yàlla rek rek rek ñu nekkoon nag fi nga xamante ne moom mooy cérémonie officielle bi ngeen gis discours bu am solo bi nga xam ne moom la sëñ Bass def ñu def mbokk yi lu dul di leen jaajëfal bu baaxa a baax di leen wax kontaan nañ ci yéen mbégte ak contentement bu mag cant ak ngërëm ñeewal na leen yéen nga xamante ne yéen ñooy mbokk internet yi ñuy suivre di jox dig daje ba beneen yoon incha